boo xam ne dafa nekk dafa ëmb euh, Dakar Accra ak Buenos projet boobu nag euh, kuréel bu bu ñu tuddee Wego moom moo koy euh, moo koy mettre en œuvre au Sénégal donc kuréel la boo xam ne dafa nekk un réseau mondial bu bu nekk ci ci monde bi yëpp buy jàppale bépp travailleur du secteur informel mais particulièrement travailleurs yi gën a yi gën a yi gën yi gën a néew doole donc euh, ñun ñu ngi fii projet bi ñu ngi depuis 2017 bu jëloon en charge euh, euh, plusieurs secteurs du de de travailleurs en emploi informel mais depuis 2018 nag dañu am benn projet boo xam ne moom laa leen wax sànq boo xam ne dafa concerné rek récupérateur Mbëbës ñoo ngi tudd boo ko Jom donc ñu liggéey ñoom di essayer di leen accompagner di xool aussi naka la ñu mën a amee benn taxawaay boo xam ne dinañ mën a gën a défendre seen i seen i liggéey. défendre seen i seen i droit donc euh, ci biir loolu ba mbas mi ñëwee euh, daaw ñu ne ah ñun kat war nañu xool mbas mi ban jeexital la am ci liggéeykat yi donc bañ defee étude boobu euh, gis ni par exemple mbas mi kat récupérateur yi daf leen dal carrément te pourtant kenn essayé wul xool ñoom nan la leen nan la leen touché te pourtant ba mbas mi amee secteur yëpp la ñu mais récupérateurs yi ñoom rek ñoo continué di liggéey mbëbës mais pourquoi ñuy continué di liggéey mbëbës ça veut dire que seen travail travail bu essentiel la n'est-ce pas ça veut dire que travail boo xam ne kenn mënu ko arrêté donc loolu ñu gis ne malgré ñu ngi continué liggéey et que par exemple finalement en fait ñu ngi liggéey mais amuñu dara parce que chaîne chaîne bi yëpp moo arrêté woon cest à jënd bi jaay bi et cetera et cetera donc da gis koo xam day xëy ba ngoon wàcc ak loxoom nan donc nga xool par exemple loolu lan lay doon ci ci père de famille n'est-ce pas donc en fait dañu dem ba dañuy jaay dañu dañu utiliser seen impact utiliser seen capital ba nga xam ne benn instant aussi son nañ trop ba ñu créer assouplissement aussi mais xam nga loolu ku perte sa capital pour nga dellusiwaat day nekk problème n'est-ce pas donc boobu ba léegi ñu ngi soox parce que système bi dafa xaw a déréglé wu ba léegi donc ce qui fait que ñoom nag euh, ba ñu ba ñu defee étude beeg ñoom gis nañ jafe-jafe yooyu yëpp gis nañ ñu tamit moom ñoom par exemple aide alimentaire yi en fait boo boo jëlee récupérateur cent récupérateur onze pour cent peut-être ñoo ci ñoo ci am bénéficier wu aide boobu ñu ne donc ñun ñu ne ñun dañu dañu dañu dañu dañu faalewul te pourtant ñun gis nañ ne par exemple suñu liggéey gis nañ liggéey bu essentiel la mais amuñu benn reconnaissance léegi ñoom ñu ne nag jàngat bi ñu def ci Covid bi nag mooy que il faut état bi. Euh, reconnaître leen dans la loi en tant que travailleur environnemental parce que travailleur la ñu yoo xam ne aussi li ñuy def ci wàllu environnement dafa am solo parce que bu fekkoon par imaginer par exemple ñaata tonne de de déchets mooy dugg Mbëbës n'est-ce pas tonne yooyu bu ñu ko doon bàyyi heure bi mu ngi biir kër yi mais ñoom ñoo koy transformer ba entreprise yi mën koo jëriñoowaat n'est-ce pas donc loolu liggéey bu am bu am solo la nest pas loolu nag bañ ko defee nag gis nañ ne par exemple ñoom Euh, nee nañu par exemple aussi nan leen jàppale ci wàllum santé ak sécurité parce que bu ko ñëw bu bës gis nga condition yi ñuy liggéey te conditions yooyu par exemple euh, conditions yi difficile la te pour la ñoom ñu ngi xëy chaque matin parce que chaque matin c' est des dames qui c' est des c' est se réveillent le matin de ba matin huit heures ba six heures du matin dem xëy dem xëy liggéey ba ba ngoon wàcc pour am lu ñu yóbbu seen seen seen kër. waaw alors yaa ngi koy wax ci seen kii bi. Mhm. ñu ne ci mois de juin bi. Euh, mhm. booy xayma ñoom li doon gagné. Mhm. dafa daanaka xaaj bi la est-ce que en termes de chiffre est-ce que mën nga ñëw ci impact bi pour par exemple gis kenn ku doon gagné ku doon gagné cinq mille francs ah jour amatoo amatoo amatoo même même euh, deux mille francs te deux mille francs mooy ñu chance yi ñu chance n'est-ce pas da ngay liggéey ba dajale par exemple say récupérer say say say teg ko doo gis ko ko jënd donc nga tourné delluwaat sa kër donc imagine un peu euh, chef de famille parce que jigéen ñi góor ñi yëpp c'est chef de famille imagine toi nga dellu sa kër dépense baa nga lay xaar ah euh, courant baa ngi lay xaar ndox baa ngi lay xaar location baa ngi lay xaar te loolu yëpp en fait aussi euh, voilà mënatuñ ko mënatuñ ko gérer s'il y avait pas bu amul woon solidarité ci seen biir je pense que loolu leneen lu ñuy waxaat la te kenn déggu